man quels sont les douze mois de l'année. sont. les douze mois de l'année n'y posé question. les douze mois de l'année. septembre novembre décembre. Hmm. juillet juillet. Hmm. mai. Hmm. Eh, avril, août. Uh-huh. Euh, décembre. tëj nga xam na. yow léegi xaaral léegi léegi septembre. novembre. Uh-huh. waaw uh-huh. mars avril. juin juillet uh-huh, août. yow damay sa moro. xam nga la kese les sept jours de la semaine les sept jours. lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche. benn jour ñaata heure lay def. Euh, benn jour benn jour ñaata heure la. vingt quatre heures. merci waay waay waay bébé Elton waay. mais bébé Elton mi jàng na de. oui. Euh, euh, alors lan mooy capitale Sénégal. mais. intellectuel bu mag mooy wax ak yow. ok c'est vrai. fan mooy capitale Sénégal. la capitale du Sénégal. ah la capitale du Sénégal. yes. oui. Sénégal Dakar merci ah, bah, c'est ça. capitale de France euh, Italie. oui. non non devez capitale de France. capitale de France. ah faut me monument bu la bi

P P. Pied waxuma la pied mooy tànk dàll laa la wax. dàll dàll la la mu koy wax. kii. temps temps temps la mu koy wax. alors alors dañuy dañuy dañuy génn côté boobu noonu je pense que Bébé Elton. ak nu mu demee mbër la. neex na xoromu na mais mbër la c'est un lutteur dafa am combat boo xam ni mi ngi koy waajal. voilà euh, effectivement combat bi foo nga wax ci. waaw waaw di ci woo Sénégalais yëpp. waaw di sant Modou Lo sama idole. Modou Lo koy sant bu baax di ko gërëm. ndax moo tax combat bi tax mais waxal waxal ngay bëreel kan ngay bëreel. Cheikh Niang laay bëreel. Cheikh Niang Cheikh Magu Boy moom da koy kii. dama dama koy dóor dama koo bëgg a dóor ba mu dee ci stade bi ma waaxe ba mu xóot si biir arène woo Modou Lo la roi des mu jullee ko ba pare ma suul ko waaw man li ma jaaxal mooy yow géejuwaay nga dëkk waaw waa géejuwaay Balla Gaye lañ tiitaroo waaw mais la moo fi indi Modou Lo mais kooku sunu mag la ku bëgg làmb biir géejuwaay moo tax nga bëgg ko ñu ngi koy félicité ci ndam lu rëy li mu jóge mais kii mooy sama idole aw ma si dara. ah am na dara de. Modou Lo mooy sa école Balla Gaye laa nekkoon mais dama fa jóge dem Ikiri Njaga Saar. kon da am problème. maa leen di suyaar bu baax di foo nekk ba gisoo foo sa bopp. Hmm. la neexee nga jóge jóge foofu dem feneen. Ah, parce que man bi may dugg ci làmb tàgguma ma kenn. Hmm, dëgg la waaw kon bu may dem feneen du ma tàggu kenn. fu ma gis sama bopp maa ngi foofu. su ma demee ba gisatuma sama bopp fii am naa droit dem fa may gisee sama bopp. dëgg la waaw léegi ba ma nekkee ecole de lutte Balla Gaye macha allah foofu am naa fa combat dëgg yàlla am naa ay ndam am naa ay victoire waaw ma dem ba gisatuma fa sama bopp. Mm. ma reculer dem écurie Ndiaga bi ma ñëwee écurie Ndiaga Sarr macha allah waaw ma bëre fa deux combats benn match nul benn bi victoire. Sénégal ñëpp nag xam ma ci combat bi passé. waaw ma ci sant waa diaspora bi yëpp. Bébé Elton amul noonu macha allah ñëpp ko bëgg. dëgg la waaw may waaj am sama combat ak Cheikh Ndeng. waaw Modou Lo lijjantil ma ko waa jàmbaar def si lu rëy. ah Modou Lo moo ko lijjantil. barki Serigne Touba woo waa jàmbaar. ñu leen Bébé Elton bu may bëree na ci bëri a xoolal acte boobu. dafa loolu loolu c'est waa nit boo ko tardé da nga koy dimbali. am nga combat de boo nga euh, woo ñëpp nag.